yaa hajaban sëriñ Masamba Kanni fancanne xutbu ya falañ ko tànne asalaamaaleykum mbokki taalibe yi jot nañu ndigal ci sëriñ Muntaxa Mbakke yàlla na fi yàgg Mbakke te wér xalif général kullu murit ñëw ca rakkam ja sëriñ Cheikh Mbakke mu Cheikh Abdou Khadir ñëw cër sëñ Bousobe Bousso ba nga aj mi nga xam ne mooy xalifa sëñ Bousobe yi ak njaboot gi ak bokk yi ak xarit yi sëñ Mamoun Bousso xalifa sëñ Mbakke Kanni Alaaji Fallu Bousso cumbileen xalifa sëñ Masamba Kanni ak njabootu nag sëñ Masamba Kanni Bousso gépp ah le 2 octobre bis baa ngoog mooy bis bi ko sëriñ Tuubaa wonoon rasulillahi tey mu jàkkaarloog moom àllarba lay doon le 2 octobre na ñëpp ñëw tuuba xam ngeen ni nag bis boobu nag wenn saan la nga jëm ñaari picc sëñ Cheikhouna Bousso mii xalifam sëñ Maram Bousso moom ci jëmmi boppam nag dafa jël bis bi bisu baayam bii sëñ Bousso Maram dugal ko ci bisu maamam sëñ Massamba Kadi xam ngeen ni nag bis boobu nag ñu ngi ko dara jaale sëñ moor Soxna Bousso sëñ Mor Soxna Bousso nag mooy taaw sëriñ Saa Bousso moom ci boppam nag moom lañ ko dara jaale sëñ Massamba Kadi nag moo doon kenn ci moom la sëriñ Touba woo ak sëñ Modou Moustapha ak sëñ Fallou ni sëñ Modou Moussa santal Tindodi ni sëñ Fallou santal Ndindi ni sëñ Massamba Kanni santal Daaru Xadim bis boobu nag moom la ñuy màggal le 2 octobre bis boobu nag ñu ngi ci yoo mbusoo ba yëpp njabootu sëriñ Bamba yëpp cheikh yoon wi yëpp kenn la woon sëñ Massamba Kanni sëñ Massamba Kanni ak sëñ Mbàkke Kanni ak soxna Aminta Kanni mi nga xam ni mooy waajuru Cheikh Abdou Khadir njabootu mbusoo ba yëpp bàyyiwuñu kenn bàyyiwuñu fenn bàyyiwuñu ñenn xam ngeen ni nag sëñ Massamba Kanni digganteem ak sëriñ Touba ku ne xam na ko mooy ki sëriñ Touba bëggaloon boppam nag le 2 octobre la bis bi lu tax ñu di ko màggal sëñ ma sàmba kan ni sëriñ Tuubaa ko téye woon ko rasulillahi taxaran xam ngeen ne bu ñu xëyee programme bi daañu jàngal xuraan bernde ku wax kër sëñ ma sàmba kan ni wax bernde bu ñu nëppee nag daañu def cérémonie officielle ba daañu fa def waxtaan woowu sëñ Abo Basiru Moor moo koy def bu ñu nëppee nag sëñ bi yeewi mbooloo mi leen ña ngi koy defee nag ca Daaru Xadim yoonu Touba Belal wax nañ ko ñépp tafa yaa hajaban li ahmad al muxtaari rakam jafaatoo foofa lil anwaari